maa ngi tudd Rama Rama ja maa ngi jóge dakaar Fass euh, ñu ñëwoon màggal si nag mu gunge sama sœur bi jógee itali ñu ñëwoon màggal si ci bésu sëñ Touba bi di ci am yëg-yëg nag yëg-yëg boo xamante ne am na xam nañ sax fu mu commencé mais xamuñu fu mu jeexee ah, ndax dañuy am cher de poule à tout moment buñ koy tudd rawatina nag fii nga ñu fekk muy bërëbu sëñ Fallou di ñaan suñu borom lépp luñ fi ñaan. yàlla nañu ko yàlla nangul ci barke Sëriñ Fallou loolu rek la ñuy ñaan. yàlla na fi yàgg te wér ndax day xalif boo xamante ne mooy toutes les xalif général parce que day di koo xamante ne dafa jaboot te lu yëngu mu ne ca lu ñaaw mu wax ci ñu koy ñaanal yàlla na fi yàgg te wér ndax lu yëngu rek ma ca. gannaaw bi ma ziaree sama mag ji. ginnaaw bi ma jullee euh, ci bi ma yàlla julli ci yoonant bi sallallahu alayhi wa sallam di ziar sama mag bi nga xam ne dafa jóge extérieur uniquement pour màggal bi ndax amul amul lu ko ëpp di gërëm euh, Khady Sall mi nga xamante ne moo nekk ci biir fii ci jumaa ji di berdeer ci suba ba léegi ñu takku nag nekk bay Fall Yaay Fallu Sëriñ Fallu voilà ci suba ba léegi ñu ci bernde yi indi na fi ndékki indi na fi añ jus yaa nga fa boisson yaa nga fa vraiment mu nekk lu rafet loo xamante ne chaque année mu def ko chaque année mu def ko bu koy defee màggal def ko kasu rajab ñu koy ñaanal yal na ko yàlla yokk ba ba mu yëg ko ci barke yonante alayhi salaatu wasalaam kontaan naa trop. man maa ngi tudd Khady Diène euh, dëkk Fass kii sama rakk la. di wax rek jërëjëf sëñ Touba moom laa njëkkee ndax ginnaaw yàlla loolu moo tax ñu taxaw fi moom mi nga xamante ne moo ñu yaatal yoon wi ba lii lépp am. waaye man nag wax dëgg yàlla euh, doom laa bëgg muy sëñ Fallou ba moo tax nga fekk ñu fii ci place am euh, mu doon koo xam ne dafa dugg ci xolu ñëpp muy ngay murit wala nekkoo murit euh, ñuy rafetlu wax dëgg yàlla bés bii. parce que man su ma ñëwee balaa may ñëwaat mën naa def deux ans du ma ñëw kon su ma ñëwee rek dama ciy am mbégte moo xamee ne doo xam fu mu day am commencement mais du am fin vraiment kontaan naa ci sama teewaay tey fii wax dëgg yàlla Touba. waaw damay ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm yal nañu yàlla may gudd fan ak wér yàlla na yàlla may ñu rek uh, tal ak fekke ay ati ati ati at ay màggali màggali màggal suñu borom mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barki sëñ Touba. waaw kontaan naa ci lool sax kontaan naa ci waaw di sant tamit ki nga xamante ne bu ñu ñëwee ci këram la ñuy dal muy sama rakk ñu koy wax Xadi Sàll mu doon ko baax moom it wax dëgg yàlla parce que Touba xam nga ne moom màggal bu jotee rek. ñëpp yaatal waaye moom da cee raw wax dëgg yàlla waaw ñun bu ñu ñëwee rek ñu ngi dal ci moom di ko ñaanal moom tamit gudd fa nag wér saa ñu fekk ko fi yéen waa télé waa télévision bi tamit di wax rek yal na doon international yal na yal ñu ngi koy ñaan ci kantunu yàlla parce que wax dëgg yàlla ñu ngi gis seen liggéey di ko rafetlu waaw yéen ñu wax dëgg yàlla ci kaw ci kanam ci lu baax. ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax tawféex di ñaanal xalifa bi euh, xalifa général mu yàgg fi lool te wér ñu ngi koy ñaan ak képp koo xamante ne rek yaa ngi fi doon euh, njiit ci euh, doon xalif waaw yaa ngi ba kër gi yëpp daal famille bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal